di nuyu bu baax a baax alxalifa sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour di ñaan suñu boroom yàlla mi ko ommatal boppam ba teg ko fi mu ne yàlla na ko téyel boppam ba mu yeggale kenn du suñu boroom yenn yi pexe eggu ci yàlla lay soob te ku mu pareel boppam rek téyel la boppam kon ñu ngi ñaan suñu boroom ci kàttanam ak baaxam yàlla may ko wér yàggal ko fi naal yi mu sumb yëpp yàlla na ci yegg ñun ñëpp ñu fekke waaye dara gënu ci rëy nag jumaa ji nga xam ni fii la góor gi toogoon bés wax ni loxo yi mu yegge rek kontaan naa ci Cheybat Alhamdi moo ko waxoon kooku ñaan la woon xamoon na ni du ko fekke moom waaye iñaanul nag mu ni loxo yi mu fekke lu mu mu àgge rek sant naa ci yàlla loolu wa ci waxu kilifa ñaan la ku ay mag ñaanal nag teg la ci siraatal mustaqima ku la moytuwul sànku Sénégal bari nañu wax torop te 18 ku ne la ñuy dugg il faut faire très attention code de bi ñu xam da ngay romb ñun la tableau bi interdit de tourner à droite la bi interdit de tourner à gauche bii ñu ni la interdit de stationnement la kooku ci wàllu àdduna la wàllu wàllu xaqiqa da ngay daw ba mbëkk sa bopp xam ni ndekete yaa ngi ci biir sens interdit du benn kon ñu ñaanal ko yàlla te bàyyi xel nag te nangul yàlla yenn yi soxor la Sénégal li ko yàq mooy soxor bés bu ne jaam taxaw wax weddi boppam ci biir cër yi yàlla koy joxe kon ñu ngi koy ziyaara di ko jox wàccuwaayam te di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla rakkam di suñu sëriñ Cheikh Al Hadj Malick si Maodo moom itam yàlla na ko fi yàlla yàggal ñu wettalanteeg ñun ñun itam ñu wettalanteeg ñoom damay bañ ñu def ko yëfu wolof nag léeg-léeg nga dégg ku la ni yàlla na ngeen fi yàggu gunge ñu ba ci kanam mooy su dem jotee ngeen dem te yàlla doxul ci logique moom yàlla doxul ci logique ci bëgg-bëggam rek lay dox ci machi ato waaye olof moom jàpp na ni dañ koy wax sax ku dem mag dem ku demul mag dem attention yëf yi du foofu de ku nekk waajalal sa bopp ndax xata ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sanatan rek la wax qaala rabbi awzicni an ashkura nicmataka allati ancamta calaya wa ala walidaya wa an acmala saalixan tardaah wa aslix li fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin sëriñ Maodo ci dégg alquranam mas nañu toog mu koy firil inni tubtu ilayka ji walla min euh, euh, naka la aaya bi waxeeti sax min zuriyati mu ni ma min baabu mu ni ma min baabu boobu sëriñ Mbay doom ji lay wax lu tuuti la ndeysaan pour wax la bàyyi xel bu mu bàyyi xel yàlla moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di leen bëgg nag suñu sang yooyu bés bu ne nga dégg lu nit wax jëmee ko ci ñoom te doo gis ku leen fi tane ci réew mi mukk ilaa yawmil qiyaamati li ñu li ñu li ñu gàlloo mag mu bejjaaw moo ko teg ci biti mu àgg suuf ndax du ko àttan sëñ Moustapha Sy Jamil dama mës a dem seeti ko sa mbàppa yónni ma fa ba may génn di dem mu ne ma Habib na ngeen xam seen bopp na ngeen xam seen bopp te ngeen xam Cheikh Al Hadji Malick mooy kat mu ni ma xale bi mujj a juddu tey ci biir kër gi bu xamee boppam yan bi mu amee boo ko tegee mag mu bejjaaw ci bitimu mu àggu suuf ndax du ko àttan yal na yàlla yokk seen leer di nuyu bu baax a baax suñu kilifa yi ñu fi fekk Seyid Cheikh Ahmed Tijani ak suñu kilifa gii di sëriñ Babacar Abdoul Aziz moom Cheybat alhamdulilah ko tudde léegi barki démb ca Dakar dafa am sama benn xarit bu ma woo ñuy waxtaan xamul sax sëriñ Babacar mosu ko gis mun ma Habib si doo ma dimbale ngir jëmmi yàlla rek yóbbu ma ba ci sëñ Babacar naa ko gis rek bu ma ko sax nuyu wallahi alazim loolu la ma wax te bari na ci ñu ay moroomam damay wax waa Tiwaawan na ngeen ko moytu ndax du leen wax boppam moom moytu leen ko géej ak dex du benn de Tiwaawan lu ne la ñuy yëkkati di wax mais attention tekkam gi ak noppeem gi moytu leen laa leen di ñaan man du ma bëgg sax di ñëw ci seen xadara lu bare ndax ni ma mel a tax bu ma sañoon mel na yéen ndax mbaax ndax wàcc ni ma gën a yéem ci ñoom mooy wàcce seen bopp léegi nag kersa amatul ci réew mi kerse jeex na fi kenn amatul kersa yare di ko ba pare nag di dal ci kaw sëriñ si dal boo xam ni yow yaa ngi nekk ci réseaux sociaux yaa ngi wax lu la neex ak sa xalaat waaw bu la neexee tu es libre waaye bul jël kilifa goo xam ni li ko yàlla may mooy li ma doon wax sànq yenn iñaan la rek ak soxar waaye yàlla du juum nag li ma la waxoon sànq rek am na ñoo xam ni ba ba muy àddunay tukki du ñu dégg tabaarakallah mukk soxor baaxul daaw góor soxor baaxul daaw góor mële euh, sañse ba sañse ñu naan ma waaw daaw góor gis nga mbubb muy mu sol man ma war ci kontaan ndax Cheikh Al Hadj la ko yàlla jaarale ndax way yi ngay way lu ma lay iñaaneel mbubb moo sol kon man dama la war a dollil benn waaye gis daaw góor mu sol mbubb mi ngay kii danga war a sant yàlla xam ni daaw góor mii kat góor gi ndekete bokk na ci alaamaatu yi mu defar ci daaw góor mbubb mu rafet muy sol yenn saa yi nga yore sa 4 x bu rafet dawal ko loolu ci ci àdduna la bokk nit ñi dañu bëgg ku def sagar di taxawaalu man léeg-léeg ma dégg ñaan suñu abit moom borom fulla la bëggul dara man leen bañ a bëgg dara bu ngeen bàyyi seen yi ngeen may wax ah lu tax bëgguma dara senegal dañu doy waar rek suñu abit bëggul dara bañ a bëgg dara waaye dafa am nag fu ma koy jaarale man ak naka laa koy amee waaw du lu nekk rek nag man yi day dee dama koy laal mbokk yi mi ngi guddi te xam naa kilifa yi seen toogaay yàgg na dama ne woon naa ñëw kebatu rek ndax awma ma sax lu ma wax wax dëgg yàlla ci seen kanam waaye fa may tëje sama waxtaan rek benn waaye bu ñu daan wax Abdul Hamid Kisk la pour ñu delloo si xel yi ku yàlla baaxaloon la nekkoon égyptien la woon bari woon xam-xam lool génn na àdduna moom bi muy dund daf daan ñaan boroomam ni suy dee yal na ko yàlla jël ci sujjóot ajjuma mu pare war a dem jumaa ji mu daan jiite ak di fa xutba pare soxnaam di ko xaar ak doomam pour mu julli ñaari rakkaa yi mu daan def d'habitude pour ñu jël ko doom ji ànd ak moom mu julli ñaari rakkaa yi fa mu sëgg sëggaay bu yàgg xale bi ñëw di laal papa rek mu ni këmba nekkate dee na bu yàgg kooku mooy Abdul Hamid Kishk ku yàlla baaxaloon la dafa am dërs bu ma leen bëgg dénk rek surtout la jeunesse gis nga kuy askanaloo sa bopp ci tariqa cheikh bokk ci kër cheikh alxaaji Malick danga war a set danga war a civilisé da nga war a sollu yiw ba ku la gis xam ni fii nga bokk doo teqalikook njàpp doo sol ay jëngal doo bëtt sa nopp déedéet taalibe Maodo dafa am nu mu war a mel fu mbubb bu rafete rek solal fu mu chéré boo amee njëgam jëndal fu parfum neexee te nga mën koo jënd jëndal bul rasta sa bopp dafa ñëw ci ñun te moomuñu ko américain yeeg ñooñu ñoo ko fi indi bëgguñu ñu koo royloo ñun meluñu noonu léeg-léeg ma gis sa mbàpp daf ci bëgg a daf ci boole titre nag moom bu sañsee day titre rek Abdoul Aziz Mbaye bi ak yow mii su ko defee ñu xam suñu bokk bëgg suñu bopp di sol yu yiw di jàpp ba nga xam ni boo ñu gisee siimahum fi wujuhihim min athari sujud yooyu la bëgg waaye tilim bott sol suwetma di ñaq di ci teg Maodo moomu loolu Abdul Hamid Kisk boobu dafa ni li yàlla daganal ci jullit yépp mu mën ko jëfandikoo nee na gisu ci lu ëpp solo jàmm li yàlla maye yépp wërsëg ak gudd fan ak yooyu yépp nee na dara dàqu ci jàmm jàmm biir ak jàmm biti yàlla nañu ko yàlla defal sëñ Cheikh Tidiane si daan na wax ni tamu bañ a ëpp nag ndax bu ëppee rek jur musiba nee na li yàlla wàcce ci kaw suuf yépp walla li metti yépp ci kaw suuf li metti yépp ci kaw suuf nee na testé na ko bu ci nekk xam na lu muy saf waaye nee na tàllal loxo nit di ko ñaan gisul lu ko gën a metti laaj li an yaxuda axadukum xablahu fa yaxtatiba xayrun lahu min an yasala annaasa aataahu aw manauhu loolu la yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax nee na jël sa sémmiñ dem ca àll ba gori matt jaay ko dunde moo gën nii waa dina ala waaw mu ngi noonu <laughs> tabaarakallaahu ahsanul xaaliqin moom mu ni yi diis yëpp ci àdduna yi diis yëpp testé na ko jéem na koo yanu waaye nee na lu ci gën a diis bor bor gisu ko waaw nee na li diis yëpp ci àdduna testé na ko waaye gisul lu gën a diis bor bor gor gu amee bor boo tëddee guddi doo nelaw di daaw goon boo gisee ki nga ko yoreel bëccëg bu la jëkkee gis nga damm koñ te li ci doy waar mooy gars yi foog nañ ni moom affaire u caaxaan la te ku ko fayul fii fay ko fële ah waaw nee na bu ñu ko laajoon nag bu ñu ko laajoon lu gën a diis yooyu yëpp nee na mooy tuumaal gor gu deful dara tuumaal góor gu deful dara dafa bari ci réew mi nañu delloo ci xel yi mbokk yi dama doon jaxase rekk toog ci sama ay wetu kilifa xaw ma lu may wax waaye man naa ñëw rekk lu ci dëng ci man maa ngi koy jéggalu yàlla bu mu nekk suñu mujj burt yàlla bu mu nekk suñu mujj gàmmu yàlla bu mu nekk suñu mujj daje léeg-léeg nit daw ñëw ni ma Habib gàmm gi de dara baaxagul ma ni ko bu ko waxati léppay baax bu kenn bu kenn jaaxle léppay baax